asalaamaaleykum mbokk internet yi ginnaaw ba ma leen nuyoo di leen jaajëfal bu baax di am contentement jano ak yéen chaque jour nee naa leen mbégte bi nag mooy di leen indil li gën a fës ci bopp xibaar yi ci noonu nag dama jël nuyoo bi rek daal di ci jiital borom kër gi ko nuyu ko ñaanal jàmm ju baree bari damay nuyu ñi ma feggoo rek daal di àndandoo jukkil leen li gën a fas mbay baaw ko nuyu naa la eh, jërëjëf ajaratu Ndeye Mbacke maa ngi lay ziar bu baax a baax wante tey li ma jaaxal gisuma kaala gi muuraay yu baax yooyu nga doon def te dangay ngaa ñëw rek def sa tagal bu simple ne woon naa la commencé nga muuraay bi waaye du continuer mën ngaa mën ngaa départ wante mënoo arrivé nuyu naa bu baax suñu mbokk yi ñuy nu seetaan bu baax a baax ci uh, Leewtoo TV ñaanal leen jàmm ak salaam di nuyu waa njaaram sama dëkk Assane. Assane Waala nuyu naa la. ne Mbacke fay la di nuyu Mbaye Babacar di nuyu internetu Leewtoo TV amaan mbégte jàkkaarloo ak ñoom pour indi leen li gën a fës ci yéen kaayu làmb ci. jeudi 29 avril 2021 ci Leewtoo point net la ñuy doore ak xibaaru làmb lam ca xamle nag mooy pour son quatrième combat en MMA. rëg-rëg. père pour la première fois Mbaye Babacar doomu sénégalais boobu daal dina lañ ci MMA pour la première fois. Leewtoo point moo bind loolu Ndeye Mbacke nee na rëg-rëg am na première défaitam ci li nga xamante ne bii mooy sport bi di MMA gannaaw boo mu teglee ñetti ndam Assane mën na noo wax ne ñeenteelu kombaam bi da cee lajj. daf ko laj mbay Babacar combat boobu mi ngi amoon biig 2 euh, heures 11 du matin la commencé Reug Reug doon ci jàkkaarloo ak euh, combattant bi di Kirill euh, Grishenko mu gagné ko nag ci deuxième round bi ban bëree wala ban combattre 10 minutes la ko kooku gagné door ko benn coup irrégulier bi mu koy dóor pratiquement mën nañ wax ne mm, kii bi round bi jeex na mu door ko ci put mu gaañu noonu la euh, daanoo ñàkk combat bi lii nag di première défaite am ginnaaw bi mu amee 4 3 combat 3 victoire ndax euh, gagné na kii di Sofiane Boukichou gagné na Ale Ngalani troisième combat mu gagné woon ci Patrick Schmidt donc Reug Reug signé na première defetam ci MMA bi Mhm. mu ngi noonu nag du chaque jour bàyyi rey nag di ko ci encouragé bu baax moom dem doomu Sénégal di ko naan nag ñu ngi ci ginnaawam waaw buy neex lépp ñu ngi sa ginnaaw rëdd la mu ngi noonu suñu làmb lañ jëm nag ba mu xëyee ci xëtam mu njëkk deux ans d'attente deux ans de tension Ama Baldé Modou Lo champion prono fa tey mu mel ni ñoom ñaar ku ci nekk lii di titre roi des arènes moom ngeen di xëccoo Mbaye Babacar. Euh, ñoom ñaar di xëccoo benn ba tànk ba nga xamante ne bii kenn moo ko yor ci ñoom ñaar muy roi des arènes Modou Lo yor ko Modou bëgg ko bëgg ko garde Ama Baldé bëgg ko nangu ci moom suñu làmb tey dafa bind ne ñaari at ya nga xamante ne bii ñoom ñaar. ñi ngi xaar wante amateurs yi tamit ñi ngi xaar ñaari at ya nga xamante ne bii coow li bari na commentaire yi bari na te ñoom ñaar benn ndombo tànk kese la ñuy xëccoo ñoom ñaar muy roi des arènes diggante Modou Lo ak Ama Baldé. dëgg la Mbaye Babacar Modou Lo Ama Baldé deux champions pour un fauteuil noonu la ko journal suñu la waxee nee na journal kii di Modou Lo ak Ama Baldé lu ñu xëccoo moom mooy couronne roi des arènes combat boobu nag mi ngi bëgg a yàgg ndax ñi ngi ko monté woon le 16 décembre 2019 après ñu def benn face à face bu raté loolu 6 avril la woon foofu ci Sen TV ay coow euh, am fa ba face à bi munul mujjul am journal suñu lamb également ñëwaat ci euh, ñaari mbër yi nee ne Pikine na kiif pa Modou nee ne Pikine daal euh, Modou Lo neexu leen dara looloo tax rivalité bi gën a yokk ba pare combat bi am tension bu baax a baax a baax wax na également rivalité entre les fans nee waa parcelle ñi nga xam ne nii ñoom ñooy supporté Modou Lo ak Pikine yi nga xam ne ñoom ñoo supporté Ama Baldé duñ jaaroo taal Uh-huh. loolu dëgg la com combat bi mooy yor dayo boobu mbay baaba. Mmh. combat bee toll noonu. mu ngi noonu. Mmh. quatre combats quatre victoires en juillet kii di Balla Gaye numéro 2 le lion de Guédiawaye mu mel ni mooy buuru juillet mbay baaba. mu mel ni weeru juillet jig na ko moom moom di euh, Balla Gaye 2 am na ci ñeenti victoire am ci ñeenti ndam Assane suñu làmb tey dafa bind na Balla Gaye ndaanaan la ba nga xamante ne bii kenn du ko naatable ndaanaan kullu faddirin la. le maréchal impérial impérial euh, noonu la ko euh, suñu làmb titré nee na Balla Gaye daal moom mooy roi mois de juillet ndax am na ci quatre combats quatre combats yooyu yëpp euh, daf ko gagné premier combat bi mu bëree mois de juillet mi ngi ko doon am contre Saloum saalum loolu la di 10 juillet cinq la xewoon mu daane ko deuxième combat bi mi ngi doon jafla jàkkaarloo ak Boy Sey loolu la 30 juillet la woon 2006. mu teg ci Issa Pouye le 29 juillet 2007 euh, mujjee ci Tyson le 31 juillet 2011 donc daal am na fa 4 victoires 4 combats ci mois de juillet te ñuy fàttali ne combat bii moom ak Bombardier ñu ngi ko prévoir le 31 juillet bi di ñëw donc mu nekk euh, cinquième combat am ci mois de juillet. ñu xool ndax dina dellowaat buum ca mboy boy ba. waaw li ci kanam rawati bat incha allah mois de juillet soreetul. mu ngi noonu Lac Rose Issa Pouye Jarko ak nga xam ne mooy Jordan Pakala la journal bi xam ne nag mooy le combat des chômeurs de luxe Mbaye Babacar mu mel ni ñeenti mbër yooyu nga xam ne dañoo toogoon lu yàgg. kenn gisu mhm. leen. Mhm. ñu ngi daal di ñëwaat ak seen ay combat mi ngi noonu ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñëpp ku ci nekk am na combat suñu làmb nag tey dalee na tuddee les semeurs de lix ay semeurs ya nga xamante ni bii gëj nañoo bëre wante ku ci nekk am na combat Assane ku ci nekk war ngaa ñëwaat wanewaat sa bopp war ngaa signé benn retour ba nga xamante ne bii war ngaa woon amateurs yi ne leen li fi nekkoon ba léegi mi ngi fi jógu fi. dëgg la Mbaye Babacar ñooñu ko mooy Lac Rose Issa Pouye Zarko Jordan ak Pakala. ñi daal journal suñu làmb euh, tuddee les chômeurs de luxe ndax dañoo gëj a bëre euh, léegi nag ñu signé seen retour ndax ñoom ñëpp ku nekk am na ci combat Lac Rose mi ngi gëj a bëre le 13 mai 2018 Moussa Ndoye moo ko mujj daane moom mi ngi war a jàkkaarloo ak Amaneex combat boobu euh, moo géet moom moo ko tëgg Issa Pouye également gëj na ci làmb ji depuis 2013 euh, bëreewul euh, mais dafa dernier combat bi dafa amoon victoire contre Rock Mbalax mhm. moom nag mi ngi war a dajeek euh, Alioune Seye 2 boobu Gaston Mbengue moo ko tëgg kii di Jarko moom it dernier combat am défaite la ci amee woon Modou Anta moo ko daane woon le 12 mars 2017 moom mu ngi war a jàkkaarloo ak baay Mandione combat boobu moo géet moo ko tëgg également kii di pakala moom kii moo ko euh, daane woon Gris 2 loolu la 21 mai 2017 la woon moom nag mi ngi waj war a jàkkaarloo ak Forja combat boobu itam euh, Gaston Mbengue moo ko tëgg ñu mujjee ak euh, kii di Jordan Jordan également dañ ko daane woon dernier combat am rëg-rëg moo ko daane woon le 22 mai 2017 moom mi ngi war a jàkkaarloo ak doomu dàngu toujours Modou Modou Guèye moo gét moom moo tëgg combat boobu. tey moo Guèye l'international le jeune milliardaire mel ni day yi xew na ci xew na ci làmb ji daa samp na ndëndam daal wallaay samp na ndëndam daal lamp yëpp waaw na na na lamp yi tàkk wallaay dama lay yóbbu ci moon gétt wallaay a loxo ci poche ay defal loolu waaye <laughs> mu ngi doon góorandooy mi jiite li nga xam ne mooy jeune amateur yi mu ngay organiser ay ndogu samedi fee ca këram di Pikine lam cay def nag mooy ay don pour taalibe yi di oh. sensibiliser waale nit ñi pour li nga xam ne mooy non violence Mbaye Babacar góorandooy moom mi nga xamante ne bii moo jiite jeune amateur yi di kuréel ga nga xamante ne bii ay amateur lañu ba pare gën a féetee ndaw ci làmb ji ñoom incha allah dañuy amal ay ndogu asan samedi euh, fas yéene cee dimbale ñi nga xamante ne bii seen ay wayjur nekk ñu fi ñu leen di wooye ay ndongo daara wante duñ ci yem danan amal li nga xamante ne bii moom mooy gën a ñaax amateurs yi gën leen a fàttali na làmb fola ak ree violence bokkul ci làmb benn yoon. dëgg la Mbaye Babacar Gora moom mooy président AJAL AJAL moom mooy association des jeune amateurs de lutte di Sénégal tey nag journal suñu làmb daf ko dalal mu am waxtaan wu yaatu séq ko ak moom moom nag wax na ci seen programme bi nga xam ne nii ñu ngi ko war a prévoir samedi bi passé ñoom dañuy organiser benn ndogu spécial. ndogu boobu nag liñ ciy fas ne mooy dañuy def ay don jagleel ko taalibe yi waaye également dañ ciy sensibiliser amateurs làmb yi ñu def non violence def euh, ndogu bi ku ñëw da ngay indaale ay yére yoo xam ne nii après dañ koy jagleel taalibe yi également dinañ fa def benn genre euh, waxtaan pour euh, invité nit ñi wala amateurs yi ñuy def sans violence xam ne boo demee ci làmb ji victoire défaite wala match nul nga fa mën a jëlee wax na également benn projet boo xam ne ni ñoom ñu ngi koy initier nee ne projet boobu ñoom dañu bëgg les jeunes amateurs ñu am benn cité boo xam ne ni ñoom rek ñoom ñoo koy dëkk nee nag dañuy teg chaque weer ñu teg benn xaalis ku ci matal rek ñu jox la sa terrain nga dem dëkk en tout cas geste bu noble la li nga xamante ne bii moom mooy euh, li ñu bëgg a dimbale taalibe yi man loolu moom a gën a ñor ci ci seen ndogu yooyu ñuy def. góorandooy moo ko jiite ñu ko ci saluer bu baax a baax macha allah Mbaye Babacar combat beneen bu ñu officialisé nag le 15 août incha allah bu dana dox ci diggante double moteur ak Quench mu nar a neex a neex mu na mu nar a nekk choc bu nar a neex double moteur ak Quench nekk ay ñaari xale Assane nekk ay ndaanaani làmb loolu ki ko taxawal moom mooy baaba jaw war a am incha allah bu ci yàlla àndee le quinze août nar a nekk combat bu mag. dëgg la may Babacar Baba Diaw moo tëgg combat boobu démb la demoon ci CNG pour régulariser combat boobu bi mu ko régulariser ba pare nag la jàpp date bi de le quinze pour war ko tëggal combat bu la 15 août waaw boobu la war a tëgg combat bi ñu fàttali ne double moteur moom nag temps yi ci ay victoire la jógee ndax ñaari dernier combat yëpp daf ko gagné. daane na naaru Sogas le 3 février 2019 dernier combat bi fëggala la daane le 7 euh, juillet. 2019 Quench moom dernier combat bi match nul la ci amoon contre Diène Kairé loolu mi ngi xewoon le 15 juin 2019 ci arène nationale. ayca. ca noonu nag euh, après li nga xam ne mooy fusion bi tax ci diggante Fass ak Ndakaaru kii di xalifa Dia mu ngi xam ne ca journal ba mhm. nee na Fass amoon na ay champion mais li ñu manqué woon mooy ay mhm. nag ba ci tegee suñu papakati Diop nag nekk na lu baax moo nekk lu gën Baye Babacar waaw Khalifa Dia moo yëkkati yooyu les kàddu li mu xamle mooy écurie Fass amoon na ay ndaanaani làmb mhm. amoon na ay bërëkat amoon na ay champion mais li leen manqué woon mooy ay entraîneurs ya nga xamante ne bii heure bu écrit bi gestoo rek yem ci ñoom heure bu écrit bi di entraîné gis leen Assane. dëgg la Mbaye Babacar Khalifa Dia moom mooy manager général euh, bu euh, écrit bi bees Fass Ndakaaru moom nag ñëwaan na ci écrit Fass bi nga xam ne nii léegi moo fusionné ak Ndakaaru nee na Fass amoon na ay entraîneurs yu baax a baax a baax mais amul woon jot pour topp mbër yi fu ñu toll. looloo tax Kati Diop mi nga xam ne nii moom moo nekk euh, coach principal bu Fass Ndakaaru jot te loolu dina euh, tax écurie boobu gën a jëm kanam nee na Tapha moom moo nekkoon écurie Fass bu njëkk euh, comme coach waaye amul woon jot de même que Abdou Gueye également amul woon jot kon euh, Kati Diop mi supporters yi si seen bopp ñoom ñoo bëggoon mu nekk coach principal. ca noonu nag kii di la Pythagore ma nekk ci écurie Rock Énergie yaramam dafa tàng la ma xam ne ci journal bi nag mooy combat de choc la bëgg pour son retour Mbaye Babacar. la Pythagore mooy yëkkate yooyu les kàddu moom nag gëj nañ koo gis ci làmb ji mais neen bëgg dellusiwaat. te buy ñëw Assane combat bu mag la bëgg combat bu tàng jër la bëgg combat bu mettee métti la bëgg bëggul combat bu ndaw combat bu mag la bëgg. dëgg la Mbaye Babacar gëj nañ ko gis ci làmb ji bi nga koy gëj a gis moom ak ñax jariñu ñoo doon jàkkaarloo loolu le 14 avril 2019 la woon ñax jariñu daane ko boobu ba léegi nag nee na moom mi ngi nekk ci ruxam di entraîner di defaru ba léegi sentir nee na moom pare na looloo tax nee na moom bëgg na combat d'ici fin de la saison mu am benn euh, adversaire boo xam ne ni dina mën a signer retour am avec la manière. am na solo. ca noonu nag kii di ndong production mu ngay taxawal li nga xam ne mooy lutte simple daal ciy teg un million. kam cee sargal nag mooy Babou Ngom le grand tambour major ki nga xam te ne nii mbay Babacar heure bu tëggee rek mbëri seen yaram tàng jël. wallaahi heure bu képpee cool. wallaahi bu sàjjee rek amateur yëpp kontaan mbër yëpp kontaan kooku mooy suñu papa baabu Ngom mm. waaye nag dafa bàyyee relève bi ak moom moo macha allah moom moom moom tamit mu jewul puso bi mu daal di réer fa papaam tegoon tànkam fa la tegaat tànkam ci li nga xamante ne bii moom mooy wàllu làmb suñu papa Babou Ngom nag ñu fas yéene koo sargal incha allah bu ci yàlla àndee le 16 mai foofu ca Gandiaye ñi fas yéene amal loolu ñoom ñooy waa N. Enco Ndong Enco production incha allah. dëgg la Mbaye Babacar Ndong Enco production Leyti Ndong jiite ko moom nag moo fi fas ne sargal Babou ngoom le tambour major sargal boobu nag mu ngi xewee ci Gandiaye le 16 mais bii di ñëw mise bi mu fa teg nag mooy un million pour euh, gala boobu nga xam ne ni mbër yi war nañ ko teew foofu ca Gandiaye. ca noonu nag kii di Yadaly Gningue ca tournoi ba muy amalee incha allah. nee na parrain bi nee na day bégal ñi nga xam te ne ñooy gagné combat ba ku ca gagné ci tournoi boobu rek dina la tegal terrain nga daal di koy jël mbay baaba. nga daal li gannaaw ba mu fayee mbër yi. ku ci nekk am na lum la compal nga dugal ci sa poos dem waaj ànd ak say mbokk fas yéene ñëw bëri si. mais li gën a neex ci li euh, boobu la tournoi benn ci parrain euh, combat yi daf ne ku jël euh, tournoi boobu la. dana yëkkati terrain jox la mu nekk la nga xamante ne bii lu am solo la Assane. dégg la mbay Mbaye Babacar Idaly ngi moo def loolu dafa tëgg benn tournoi boole ci mbër yi di yankaaw mu war ci dajeek caatu Daouda Albarka Kayre ak. Kaaw Gourdin ñaari ñeenti mbër yi la jël defal leen benn tournoi tournoi bi nag mi ngi première journée bi mi ngi démarré le 26 mai 2021 bi di ñëw euh, tournoi 4 euh, lutteurs yi nag ñoom ku nekk di nga daje sa biir léegi vainqueur bi idaal yi ñu ngi nee ne am na benn parrain boo xam ne moom pare na ku ko jël mu jox la benn terrain boo xam ne nii mën nga ci dëkk ak ak yow ak sa waa kër. kooku mooy Idaaly Gningue borom Gningue production. maa ko tuddee le promoteur des espoirs di promoteur ba nga xamante ne bii macha allah xale yi rek la bëgg a génne ndaanaan yi nga xamante ne bii ñu ngi ci suuf te fëlagun mu jox leen seen sens ñoom tamit ñu mën a génn Ndeye Mbacke muy lu am solo. muy lu am solo yi daal ñu ngi koy nuyu au passage sa xarit boobu. waaw borom baax la même dañu leen sampal yaa nekk mbëru Leewtoo yàgg <laughs> mu ngi doon nag dama di jaajëfal bu baax loolu moo nekkoon li gën a fës ci xibaaru làmb may looy tàggatoo xanaa jaajëfal ñëpp ñaanal ñëpp jaam ak salaam tey nag damay bëggee sama xarit sama soppe Adja Nafi Ndiaye nga xamante ne bii maa ko tuddee la de benn borom ñu laay ba ca Kaaba ga yàlla na sa jàmm yàgg bég naa ci yow kontaan naa ci yow di la ñaanal jàmm ak salaam di la ñaanal weeru kooru jàmm di leen dig daje incha allah bu ci yàlla àndee suba ak jàmm suba boo ñëw nag na nga muuru la sax Assane Waal tàggatoo. nga baaxee di la remercier di remercier Mbaye Babacar di remercier équipe bu Leewtoo TV yëpp Yacine Fall Fama équipe bi yëpp di jox dig daje ba suba ak jàmm incha allah. muy noonu nag dama jaajëfal bu baax yéen suñu internet di jaajëfal ki nga xamante ne nii mooy sama caméraman bi faama nekk sama coiffeuse aussi tey moom mbay amoo loo faamaa jaar fii ci bopp bi di ko bëggee bu baax sama jigéen jooju kontaan ci moom di kontaan ci Bilal Bamba bëgg naa ci moom loolu Assane Waalo yóbbu ma feggoon borom Linguère bëgg naa ci yow kewe sama yaay booy njaay jaar sant bee naqari nag moo tax maa moom mu ngi ñëw jiwoo sant bee neexul yaa na fi yii sant bi neexul mu ngi noonu Aïda bëgg naa ci yow bu baax a baax a baax ah kontaan naa ci yow maa xeese booy matu kooku pele ñaat la foog ma nuyu ko bëgg ci moom xam naa dama ne jox dig daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV